jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internetu 5M TV Sénégal jàngeen jëf ci teewlu bi. ndax président Ousmane Sonko nee na askanu Sénégal la dénk boppam dénkul boppam benn sëriñ maa ko waxaat dénkul boppam benn nit dénkul boppam benn homme d'affaires dénkul boppam benn étranger askanu Sénégal wi ko aar effectivement mars 2021 askanu Sénégal boobu ñoo fi nekk ba léegi nii te askanu Sénégal tey jii lañ gën a déterminé wu tey lañ tey jii lañ gën a wu. tey jii lañ gën a jox suñu bopp même bu dul woon Ousmane Sonko ñun war nañoo xalaat 14 personnes yi faat événement mars même bu dul woon Ousmane Sonko war nañoo xalaat gor yi ne ci kaso bi tey jii nga xam tey jii bu ñu laa def point de vente ñun ñooy toog fii nañoo ñoom kon tey jii ñun ñi ku fi taxaw di ragal kaso wala ngay bàyyi xel Macky Sall yow doo julit doo gor ku fi taxaw ci ñun ñi di bàyyi xel dañ laa war a jàpp di bàyyi xel dañ laa war a rey doo gor doo julit ndax lii ñu muy jàpp am na ay gor yoo xam tey jii ñu ngi ci kaso bi muy rey am na góor yoo xam ne rey nañ leen te ñaar yooyu dong la man fi kon nañ xam ne combat bi na gagné nañ ko pare la jël mooy dëgërlu ñooñu i car jël seen i a jàmmaarloog moom benn aali moo ko ëppoon doole fop ab marchand ambulant yaay jàmm moo ko doole fop benn attaque boo fi duggee boo tudd yaay jàmm borom tax bi nar a wàccal sax kon tey jii ñun askan Sénégal bu ñu ba am nañu tiit ci Macky war nañoo xoolaat suñu bopp ñun waa Touba daal lii ñu bëgg a teg Ousmane Sonko duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te ko lii nag bu ma ko waxee ñoom war na ñoo gëm nañu duñ ko nangu te ku ci nekk nag lam la jaral du ma la ko wax du Ousmane Sonko moo la ko wax yow yaa koy defal sa bopp asalaamaaleykum